Gracias. Sering touba tuba tek ko fo xamni musu Ia tek dara ya kitabal karim anta habibi wa khalili wa khabl kunta tabibi moy xaritam moy sopem lum bëgg safara tamit ci alxuraan la ko dan safara alxuraan rek moy lo xamni bu duggé ci xol da koy fess del lenen lu ci dëkkut xajal ko mo taxone serigne bi ni مطى الدعايات الكتاب الذي به أتانا تطب نفسي وعمري وأوطاني saa ما ma jàngee benn aay ci téereb yàlla bi nee na sama xel day dal sama dund day neex داي day teey kon dafa mel ni li ne li defar jamonoom lépp alxuraan la moo tax bu ñu bëggee di ko fàttaliku duñ ci jiital lu dul alxuraan alxuraan nañ ko ne daara ji lim lay njëkk digal moy jang alquran lim bëgg tamit moy nga jang ko ba mokal ko dooru jublu ci leneen alquran rek ka jafe bu duggé nak lepp jappandi motax da daan wax naan nangu genn la ku nangu la njëkk rek lepp baax waye ku gant lu njëkk dara do baaxati moo taxoon moom la waccu way ba gëna kawé kawe moo tax nag ñun fàttaliku gi koy def jotaay bi niñ démé liñ fi wacc ci kamil alquran bu doon liñuy lim kenn du mëna xam num tollu waye am kilifa li tax mu neex moy do dox ci lëndëm mo lay nital sëriñ cheikh mbàkke mom sëriñ salou yalla naka yalla yàlla ndam te biñ ko ko waxee danañu fàttaliku sëriñ bi mom amut luma leen ciy jàngal ci lu leer la doon dox te ci la leen doon wommat kon amut luma ma leen dal waxati waaye dal mom li nga xam ne mom ko moy def di wut ay lim ci njang li ci am solo rek moy na sel rek te yalla rek tax dal di jang ni wa ayatun wahidatun tudabbirat fiha tafoo khatmatan minu khalat ben aya nga jang ci alquran jema xam naka la ngay def ba jariñoo ci mo gën fop jaag wacce kamil bo xamni eh, daray daray yàlla raxu ca manam xalat yalla raxu ca moñ ko waxon motax jang gi liñ fi jang ci kamil kenn xamut ni tollu toll bëgg guñ ko bëgg ak cofeel guñ am ci mom motax ñu ne tamit loolu duñ ci doyal ak guñ ko min ginaaw loolu tamit nit ki dafa am lo xamni farata la ci mom am lu ñuy wax sunna am nak yo xamni la sëriñ bi daf ne waqbah li nafsika ala tamadi shaqilatul wirdi ala tamadi dani nit ki nit ki nit ku nek na dencal boppam ndaxañteefu wirdi ndaxañteefu wird moy eh, ginaaw li bax bi amé tamit na nga wutul sa bopp mbaggar fekku mbaka mbaka li ñuy wax mbakar feggu ci lu bax li nga xam yaay fa sa bop ni li lu bax la waaye li nak dama koy defaat muy lu bax lo xam mako warlul sama bop lu melni serigne bi lim ñu ñoon ak fim faré ñoon war nañ sa su nekk di xol la ko ñoroon lam bëggoon lam ñu tégon ñu warlul suñu bop dañ ci sax ba dé xamni lool rek a jafe li ñuy dunde nak mom fokk suñu borom danañu ko warlu motax kon xaj bu njëkk bi ñun ni nañ ko jagleel alcorane bis bi bu xeyé dañuy jàng alcorane ak qasida buñ noonu dé tisbar bu nopi wo mel na mak ci ñi ñi yaron mu fatli wat ñu serigne bi bu ko defee nak ñu ko kuréeli xasside yi nga xamni mo doonon doonoon bëggug bi non rek lañ koy doxale bis bi nak Serigne Cheikh moñu ñu ni ñu nañ koy def ci rajab rajab nag moo doonoon bëggu Serigne Touba Serigne saliw ndax Serigne bi daf ni busra lana qad atana al wal karamu lama stahallat alayna lasrul hurum husna mataban mahal khufran fi rajabin wa nartaji fil bawaqi rawda man hurimu lasrul hurum yep yep yep am ciir waye nak rajab dafa am ciiru bopam bo xamne daf ko jago ndax lu melni ni ak delo ci yalla ak ñaan yàlla da ko ubbi rajab képp te it xam nga xam nga nit ki moom dañ ne njiggalu koo gis rek ubbeeku xéewal moo cay topp moo tax tamit kon nag loolu tamit day doon lu jar a bàyyi xel moo tax tamit moom ñun ginnaaw bu njàngee alxuraan xasida daa am wàccuwaay boo xam ni dara du ko dab sëriñ bi dafa wax ni yasurru xayral mursalin maha sihaabil ajmalin wa alihil mukammilin ixdaamuhu bi xale nii dani dana bégal ngeen ji kuñ yónni ak sahaba yu rafet ya ak ñoñam yu mat ña li leen di bigal mooy ixdaamoo li ma koy liggéeyal bi xalam yi ci sama xalima li mu jubloo wax mooy xaside yi xaside rek mooy loo xam ne ma talawtul aya lin xaadatil muna wayan li xayri sarmaran soota marudi sëñ tuba dani saa bu ma jàngeew aaya rek xéewal ñëw seytaane daw waaye xaside nag mooy loo xam ne saa boo ko jàngee yonent bi bég saa saxaaba yi bég waa këram bég kon nak loolu day war ci ku bëgg a señ ku nekk nga di ko diko di da naka daanaka mo moo waral jotaay bi ngir leeral nit ñepp rek ni liggéey bi da bokk ci lenn ci li nga xam da nañ ko taxawé moy ñaanal señ Saliou day sax sa su nekk buñ démé nak ba radio bi teru ñu sét ci dibéer ju yaatu ñu yendoo ko mel ni ku koy jébal liggéey bo moy dajala ñaan yëpp delloo ko waaye luñ saxo la sa su nekk té duñ ko bayyi ba àddina tukki daa am yo xam dañ ko baxo té war na leer ñepp ngir ñi ci dëppoo di ci nosu di ci ànd ngir doole ja yokk sëñ seex saa boo waxee moom lim ñuy digal mooy nañuy diisoo lépp lañ war a nos waaye lu baax a gën a aajowoo nos ndax wuute bon na lool waaye wuute ci lu baax moo gën a doy waar ndax day indi ay ay ay ay jiixi jaaxa yu baree bare bari moo tax saa boo waxee moom dana ma wax nañu ñu yàlla kat yonent bi la bind mu gënal ko ñëpp te daf ne ko saa wasaawirhum fil amri del diisoo ñi nga àndal ak donte yaa tax ñu bind ñëpp kon diisoo mënta ñàkk am na ay saabu yoo xam ne dañ koy faral di dajale saa buñ demee ba jamonoy nawet ci weeru ut bi ñu jël saabu yëpp comme niñ ko seetaane ci image yi ko jiitu ñu yët ko da ñu ñu yët ko sang yëpp buñ ñu digalee ñu jàllale ko ci daara yi ñu jàllale ko buñ taamoo tamit ñu bàyyi leen ko fa ñu bàyyee ko fa ndax xam nañ la fa la fa war a dem fuñ ci dem itam la ñuy xamal mooy daara ji ñun ñoo fi nekkoon suñu kër luñ fiy def lu nekk ñun la war kon daa mel ne ku cay def dara dañu cee dimbale waaye mooy suñ këru bopp ndax nit ki foo juddoo yaree yaroo fa ba doon mu kàllaf foofu nga gën a foofu nga gën xam te mooy sëb cër moo tax ñuy faral di def loo am na leneen lu ñuy loo xam ne dañ ñu koo yokkal muy ndimbal ci ñun mooy lu mel ni liggéey bi nga xam ne sëriñ bi dañ ñu ko sëriñ si dañ koy faral di liggéeyloo ci ko lu mel ni ngóob ak bàcc mi ak ruuj ak yu demee noonu te wóor na ma wóor yàlla ne ñun buñ ko mënoon ñu defal leen ko mooy gën a sedd seen xol keneen ku leen ko mën a defal ku nekk ngir xam ñu xam ñun li ñuy def ni muy seetle ak niñ ciy dëggoo ak yene jiñ ci am ak def giñ leen def ni sun bop motax buñ sañon luñuy def lu nekk ñoo leen koy defal kon nak dafa war doon luñ wara a xel ni ñoo koy wara defal sun bop ñu diko ko ci jumtukaay di ko ci ci ci ci ci ci xewul diko ko ci lepp ba nga xamni ëlëk buñ ko wara defal sun bop duñ talal kenn loxo lepp ñoo koy defal sun bop te Serigne Touba la mbiram sorti ba nga xamni bo ci te bëgg ko rek lo ci dogu te bëgg ko rek dang ko ci am lo ci amul rek dang ko wala sabablu lu wala bëgg ko sabablu dogg ko bëgg ko ci mbiram rek da nga ko am ba ku la gis sax day jàpp ni ay jàmbaar waaye booba fekk na ni kenn du jàmbaar ku rek borom mbir mi rek mooy jàmbar bokk na ci loolu ñuy def itam mooy siyaar bi nga xam ni dañ ko baaxoo daan ko def ak Serigne Saliou ñu yeesalaat ko ci Serigne Cheikh at mu nekk dañ koy def siyaar boobu tamit maanaam organisation bii nga xam ne am na fii ci bis bi bu ko gën a rëy moo war a am ci bis boobu bu ñuy dem fexe ba alxuraan ji xasida yi laytaay ko buñ démé tamit addi yépp yembu ba nga xamanteni ci ni nit ñi def rek la def bala muy naaj danañ mën a jébbal suñu liggéey sëriñ bi ba nga xamné luñu fa bayyi rek suñu coobaree bop la muy suñu nosi nosi bop sëriñ Cheikh nak moñu ñu digal nosu mënta ñak nos nak borom mi xela koy def lépp lu lu wara def nañ ko sét suñu xel ba mu dëppoog diine xel du ko bañ ñu daal di koy wéyal lool rek am solo buñ sété waxtaan nak ah, kenn ku nekk feñal na sa liggéey Eh, biñ démé ba ki ren suñu Habib Diop lañ tan mo defal ñu waxtan wi eh, kooku ko yaakaar xol dina at mu nekk tamit dinañ seet ko xamni mo ñu koy defal ba nga xamni bu ñëwé dal suñu xol dina sedd amna na jangum njàngoom xasida ci yëkëti jangum xasida ci durus eh, nit ñi tamit kenn ko nekk feñal na sa liggéey waaye ku gis bis bi ni jaar yoon rek di nga xamni mbolo dal moy doole nit ku nekk na def la mané rek ki jang na jang ki togg na togg kii organisé na organisé kii filmé na filmé ku nekk lam war a nekk na ca nekk bu lépp sottee rek lay door a tudd liggéey daa mënta ñàkk njiit rek waaye kon dañ naan lii ki ko jiite daal du kenn ku dul Serigne Touba moo nekk ci yoon wi moo nekk ci kanam ñun ñëpp dañuy xeeñtu topp ci ginnaawam rek yàlla nañu ci yàlla defal ndimbal yàlla nañu ci yàlla defal tawféex ci barkeb Serigne Saliou di ñaan yàlla na yàlla sàmm njabootub Serigne Saliou bi yàlla na leen yàlla yokk ndam yàlla na leen aar ba niñ bëgg liggéey bi lépp rek ñu am ci lu kawe suñu njort ndax fii lañ yaakaar fii lañ am fii rek la ñuy noyyee lu koy lu ko jagal lu ko lu ko taaral lu ko sellal rek la ñuy bëgg te loolu rek lañ mën a sabab lu am ci ndam nag leneen lu waaye mën a defi tamit doo ci am ndam ndax yàlla moo moo moo na mel noonu mbiram euh, kon nag bu ko defee ñun dong yëpp rek euh, ak ak ak taalibe yëpp ak sopp yëpp dong yi lañ mën a wax ndax ku ànd ak ñoon rek ci nga yonante bi sallallahu taala alayhi wa nit ku nekk ka muy àndal moom moom ñoo yamub àtte nit luñ mënta dabaatal amul cër buñ mënta jot amul mi ngi tëru ci këm gëm-gëmu nit ki ak farlu nit ki ak yéen ak nit ñi kon nag ñu ñu ànd ak njàng mi déglu waxtaan yi di ñaan yàlla nañu yàlla may ñu tekk koy